lii nga xam ne mooy bis bu tedd bii nga xam ne moom la ñuy xaar te fan yu néew dox suñu digganteeg moom te muy bisub mbégte di bisub jaamu yàlla di bisub sant bis boobu nag la doon sabab bi doonul woon ak nii nga xam ne ni la ko nit ñi jàppe nga xam ne dañ koo jàppee bisub xew xew noosukaay bisub dajee caaxaan fo dem ba kulóor ko kulóor boo xam ne bi jamono ñëwee tey ba indi ak ay mbiram muy jàngoro ji la ci bokkul woon loola lépp dañ na ba liñ saxal ne moom lañ ciy fas yéene def loola mooy ni nga xam ne ni la ko sëñ bi santaane woon loolu nag lees yàgga danoncé la lees yàgga wax la waaye lees naqar la woon la ndax bu ngeen gisee ni màggal gi toll ak niñ xamale nit ñi ne mooy màggal gi loola bokkut ak ni ko xam ne ni la ko sëñ Tuubaa bëgge woon loolu tey bu ma ci xuusee lu yàgg ci ñeenteelu waxtaan wi ba àgg ci juróomeel ba ba dem ca la nga xam ne mooy juróom benneel ba lu bari dana ci feeñ ndax bis bi bisub jaamu yàlla la ndax la taxoon sëñ bi woote ko sabab ba moo doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te la ca xew lépp dara seddu ci te ko mu wàccoon ci sa kaw tey booy demee ba yàlla dogal nga réussir ca loola sooy santaane ñu sant na la yàlla bu bokk nii nga xam ne tey nii lañ koy doxale ndax ñàkk xam moo ba tax ñu bari di ko def fii ne bisub noosukaay lañ ko def bis bi buñ demee ba weeru safar bi bu teroo ñu naan léegi dañuy safar première safar deuxième safar defuñu ko ci sant yàlla defuñu ko ci lenn ñu roog sëñ bi doon dox war nañoo xam ne seytaane ma ngi ciy dugal loxoom waaye sëñ bi moom lu bokk ci moom dana ko raxas ba mu set loolu moo tax ren jii ku gis ni mu doxee ak yeneen xew-xew yi nga xam ne ñañ koy wooteel ñoom ñoo fi wutu woon sëñ Touba ni ñu ko doxalee ren lu bokkut ak dañ ko daan doxale ndax sëñ bi bëggal boppam mbir mi ba téyal ko boppam ne kum fi tegit su la naree dimbali daanu la teg ci aw yoon ñi ànd ak moom it dañ leen teg ci yoon bañ mën a liggéeyal ki nga xam ne moo di Cheikhul Khadim bis boobu mooy bis bi mu génne woon newee ci catal waxtaan wa ca waxtaan way mujj sabab boobu bépp dina dikk waaye comme tey ñu tàmbalee ci fi nga xam ne rek mooy boobu yi ñu koy jëlee Touba wala mu génn Touba ànd ak ñoom àndal dikk fi nga xamante ni fii mooy Mbàkke Bari ànd ak ñam ca àndal ba yàlla dogal mu toog fa ñeenti weer waaye ci biir ñeenti weer yooyu ci la nijaayam wàcc bu liggéey muy sëñ bu soobee moom yi nga xam ne bokkoon na ci li ko yonent bi wax li feeg mi ngi fi ah jàpp naa ne lii nga bëgg du am ndax ñeewante na la te bu ñaanee yàlla dana ko nangu waaye yàlla dogal nag bi sëñ bi daataan soobu wàcc na ba mu dem siyaara ji ko dellu siwaat dénkaane na dëkk bi tamit dénkaane yoon wi tamit dénk lépp ña ko war a yor bokkoon na ci ñam dénk maam na bokkoon na ci ñam may maam Cheikh bokkoon na ci ñam defal ay teraanga ak xéewal yoo xam ne si ku leen gis xam ne ñi kër ku baax lañ jógee sëñ Mandumbe Mbàkke waaye bokk na ci it ñam dénkoon doon leen wooteloo maam Cheikh Ibrahima kon dag naan maam Cheikh Anta sëñ Mandumbe maam Cheikh Ibrahima Fall ak ki nga xamante ne si mooy maam Thierno te loola la ko waral dégg ndigal gum dégg ndigal ci ndénkaane waajuram wa sëñ Mamour Anta Sali loola rek moo ko waral ndax ba dara dul dara te dara xewagul woote bi siiwagul yëkkateegu ko ci kaw def na sallallahu alayhi wa sallam defoon fas tax bi ma tuumar boobee loola lépp xewagul woon ay ba ko sëñ Mamour Anta Sali woowee woo sëñ Ibrahima Mbacke Kajoor ñoom ñaar képp ca Mbacke Kajoor ka ñetteel muy soxna Anta Ndiaye Mbacke mu wax sëñ Tuubaa kàddoom yu rëy yooyu xamal ko ne ko damaa def Ibrahima yi ne sa baay ndax nun kat ay jaamu yàlla lañ jàng nañ alxuraan jàng nañ bépp téere xam-xam lu yàlla digle def naa ko lu yàlla tere mësee suma ca séen waaye jub gu yàlla digle rek ci alxuraan def naa ko waaye loolee day gis nañ ne yaa ñu ca raw yaa ñu ca man te fa nga ci àgg àgguñu ko kon nag dama laa bëgg a jox sama bopp moom sëñ Mor Anta Sali wax ko doomam ji di sëñ Touba te xamal na ko nekkat loo sama taw te magoo ci njaboot gi waaye def defub yàlla nag man moom dafa bokk ci li nga xamante ne si dama koy duddaale ci biir lislaam ji ma bëgg nga def Ibrahima yi na sa bàyyi boo lëggee nag fee nga xam ne fa lañ jëm ëllëg donte fu ma fa yàlla lu ma fay ragalee na nga dox sama diggante ak suñu borom jox naa la sama bopp àddina ak àllaaxira loolu sëñ Maam Mor Anta Sali ko wax te bu ñu a ngi toog bàyyi kii nga xamante ne sii soxna Anta Ndiaye Mbacke waajur maam Cheikh Anta ngi toog te boobu jébbalu xewgu kon moom laata muy génn àddina moom xamoon na dogalub yàlla bàyyi woon na boppam Cheikhul Khadim def naa Ibrahima yi muy sa bàyyi na nga des fii ànd ak moom nii ñu ànd te ndax yoon wi kat wala sunu kër euh, waajur wi kat bu ngeen gisee nu àndandoo nii ba doon benn dank loolu toppante dong moo na ko may daa di wax sa Ibrahima Mbacke Kajoor na ko def naa Ahmadou mii muy sa taw sëñ Ahmad sëñ Ibrahima Mbàkke Kajoor sax kat daana wax ne ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko ah xuma am nga bàyyam déet waaye man leer na man am naa taaw sëñ Tuubaa daana ko wax ne ko Baye Omar mu ne ko waaw mu ne ko ndax defoo sëñ Amar ne ko ne ko man damaay sab taaw mu ne ko xuma am nga bàyyam déet waaye man leer na man am naa taaw bokkoon na ca kàddu ya ko moom Maam Mor Anta Sali yëkkati it wax sëñ Ibrahima Mbàkke na ko desal fii ci Mbàkke Kajoor gii boo fi desee liñ fi def ci jaamu yàlla def ko ci njàngum alxuraan def ko ci ay xeeti xibaadaat loola lépp bul ko bàyyi muy dem di duggaat yeneen loxo ndax ñetti at dong lañu fa dëkk loolu da ko nag Ahmadu mii gis naa ne digg ab dëkkam mi ngi ci diggante kàddu baloo ji ak fi nga xamante ne sii mooy Mbàkke Bawal te booba kon moom sëñ Maamoor Anta Sali gisoon na Tuubaa kon nag yow desal fii ndax sëñ Maamoor Jaara moom kër gee nga xam ne sëñ Abibu moo ko moomoon muy maam Abibulaahi mu mag ma nga xam ne ba mu fi jógee tey man maa ko doon man sëñ Mor Anta Sali te ñi ngi fii ci Mbàkke Kajoor kooke sëñ Maamoor moom soxna Jaara mi bokk ak Ahmadu mii lépp moo fa nekk tey foofee tey jii moo fa nekkul tey yaa yaa fa war a nekk te foofa moo fa demee fi mu toll nii sëñ moor génn dem di lijjanti ji feneen loola day jël ab temps rek te kon fii mën naa gent kon nag bàyyi yàlla ak moor foofa te nekk fii su ko defee ma dër gis ngeen la ca xew lépp àppal sëñ Ibra Mbàkke Kajoor moomu nag ba nga xamee ne yàlla dogal na mu boole koog ki nga xamante ne sii mooy sëñ Touba moom sëñ Maam Mor Anta Sali soo Anta Njaay Mbàkke toog yàlla dogal nag sëñ Mor génn àddina sëñ tey bindu mémoire si la jullee ko ñu yóbbu ko fi nga xam ne mooy deqale ban ko yóbbu sëñ ba àndoon ca dem ba ba nga xamee ne yàlla dogal na mu ànd ca dem ba ba nga xam ne am na ku ko niséeroon jox ko fasam sëñ bi xool ko ne ko doxam dox bee ma doy ban àggee ba nga xam ne dañ jébbal nañ ko boroom ba dell si ci kër gi xew-xew yi ci xew déggéen sëñ tey bindu mémoire si la booba um, Ahmadou Bamba lañ daan wooye sëñ Touba mu woo ko ñëpp dégg ko mu ne ko dama bëgg nga jege si fii sa waajur wu baax wax doonoon sa sëriñ doonoon sa kilifa te bu ñu jógee ca loola ñu àndandoo dem kër Lat Joor waaye ba mu ne ko danoo bëgg nga ñëw fii sëñ bi def ne ñoo ket dox ndànk ay jéego daal di toog foo xam ne sii bu waxee danañ ko dégg bu ñoom waxee danañ ko dégg ci lu dul kenn di yëkkati sa kàddu mu ne ko dañoo bëgg nga gën a jege si mu ne ko fii baax na ndax booba teggi ni jóg di jéggat moom la am moo tax mu toog foofu bañ ko waxee nag ba wax ko ba siyaare ko suñ bi ba seen xeel daj nag ci nañ ànd dem kër Lat Joor suñu demee kër Lat Joor buñ demee ñu nga man ko koo jaale su ko defee moom kat sëriñam la woon xaritam la woon su ko defee fa ko Lat Joor féete woon ñu wax ko mu féete la te loolu kat doo ca mën a jële leen lu dul njëriñ waaye ba mu waxee nag siyaare leen ñaanal leen ci li nga xam ne wax nañ ko ci seere su rafet leen wax ne nag am naa nag jëf so ba ñaari tànk nag jëme ko ci buntu kër buur malaaka yi di ma seen kooku moom sama fukki xel ak juróom xalaatu ñenn ñenn ñenn ne tasax jaaxle ndax fañ xam ne fi mu toll ci at ak ñoom ñi nga xam ne ay sëriñ lañ jàppee nañ ne kat moom mii daf leen a xeeb ñi nga xam ne nit àddina ñit jàpp ne moom mii kat dafa mel na lu dof muy ñu di jàppe ko dof ba pare di ko jàngalee loolu dikkoon na ci waxtaan wi nga xam ne ci moom la génn bi nga xamee ne jataay yooyu jàll na sëriñ Touba. te déwén sa la daal di taxawal li nga xam ne moo yoonu murit gannaaw bi mu ko taxawalee ñu jébbuloon woon andi woon nañ ko ci vidéo yi jëkk ya ba ñu jébbaloo ba nopp te sëñ Adama Sarr eh, eh, sëñ Adama Guèye jiitu ci sëñ Ibrahima Sarr Njaañ topp ci sëñ Massamba eh, sama sëñ Massamba Diop Sam topp ci ci bisub ajjuma boobee ka ñeenteel mooy sëñ Abdourahmane Lo ak ki nga xam ne mooy sëñ Modou gay Jamoy ka leen juróom-benneel mooy sëñ Daaru Assane Ndiaye ka leen juróom-ñaareel mooy sëñ sëñ Mbàkke bu sax ka leen juróom-ñetteel mooy sëñ Modou Gueye ka leen mooy sëñ Modou Gueye tàggaar tàggaar sëñ Modou Ndiaye moom moo leen juróom-ñeenteel uur boobu ñoom ñoo njëkk a jébbalu bi wata bi xawee bi yàlla dogalee nag sëñ bi daa di fay toxoo ci loolu la ko waajuram ba digaloon mu tàggu baayam ba baayam ba tàggu bu rafet muy sëñ Ibra Mbàkke Kajoor la daal ñëw Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol bi nga xam ne ñëw na yàlla dogal nag fii kër Alaaji Baara gi nekk foofu la dal waaye bi mu ñëwee ba nga xam ne mi waaja dugg ci kër gi la ne wa atul bu yoo tamit ab waa néeg boo ciy dugg da ngay jaar ci buntu waaye la leen ma ki nga xam ne mooy sëñ Maam Mor Jaara ndax mooy borom kër gi bi sëñ Mor ñëwee ba nuyoog moom ba noppi la ne ko ah waatu bu yoo tamit ab waa bi kat man kat dangay ngay sama kilifa te bëgguma dugg ci kër gi te jaaruma ko ci yow mu ne ko kàddu googu nga wax de dégg naa ko waaye man nag damay nangu dogalab yàlla ci yow kàddu gii yàlla lii de yàlla def ci yow nag man daf maa umpul mu ne ko ma dee sa kilifa it jàngal la yar la lool yi lépp dem nañ ba nga xamante ne si gis naa ne yàlla def na ci yow loo xam ne si dee sa war a topp sa gannaaw ko te kër gii de boo ne bu ci duggati sama tànk du fi tegu tey xam nga ne moom tamit lam ko waxal loola jar na topp sëñ Tuubaa te loolu la sëñ lu naan baay bi la jur topp la sa baayu tax topp la am mag mu topp la am rakk mu topp la sëñ Tuubaa képp ko am ci àddina loola firndeel na ci sëñ Maamor Anta Sali ak sëñ Ibrahima Mbàkke Kajoor ak sëñ Maamor Jaara mii ñaari weer ñu tàmbale di ko bundoxataal di bundoxataal waa këram yi nga xam ne ñoo topp ci moom ndax mbooloo mi nga xam ne yàlla jox na ko te këram dafa mujj demoon ba mel ne ab jax ñii ñëw di laajte ak ñëw ñëw di indi say addiya ñooñu ñëpp dañ doon mujj di ñëw borom xam-xam yaa ngi gis borom alal yi di gis loola nag neexul buur yi addina yi neexul ñi nga xam ne ñoo am alal ñoo tàmbale di bundoxataal waa këram yi ñaari weer yam fa def mujj mu daal di ber jàkkay boppam ber mbooloom boppam waaye mbooloom boppam dem ba ëpp mbooloom ñee jàkkay boppam di gën a fees jàkkay waaye bu ndoxate yi di continuer mu ñëw daal di sanc Daaru Salaam ànd ak ñam ko àndal tudde ko jàmm gën 1886 dëkk fa lu toll ci ñaari at ak genn wàll ba yàlla dogal 1888 boobu bii nga xamante ne si yàlla dogal na jot na bañ tabaskee ca tabaski googa ba am juróomi fan la sëñ bi génn dem wëri barab bii di Touba ba toll ci fukki fan ak juróom mbooloo ma daal di toog jaaxle dem daal di àndandoo ba mat fukki nit ak juróom dem doon ko wëri ci àll bi ba dajeeg tukulóor bi ñuy wax boobu ja ñi ngi yor seen i naa laa yor seen lépp ndax boobu sëñ Tuubaa jaral leen ni te àll Tuubaa booba ay ndeg ngeen tuñu ko dëkk ba dikk fekk ko fii nga xam ne tey fi la nekk tey muy Tuubaa mu awalu yow min mun maxaramin mu wax leen ne leen fii kat laa doon seet damaa bëgg ñu defaral ma fi kër mbooloo ma daa di takkatoo dagg gori bant gori xer gori gattax wut eh, eh, ay laat mu nattal leen kër ga mu yaatoo juróom benn fukki mètre guddi juróom-ñeent fukki mètre 60 sur ñu liggéey ko ci juróom benn weer yu teg bañ nappee mu ne kër gi tudd naa ko Touba daal di àndaat ak mbooloo ma daal di wuti fi nga xam ne mooy Darou Salaam ba mu demee Darou Salaam daal di toxal ña fa nekkoon ba mu toxalee ña fa nekkoon nag dikk indi leen biir Touba ñu toll ci fukki nit ak juróom benn yoo xam ne si daf leen a xaaj ñeenti xaaj kenn xaaj bu ne occupé ñeenti nit la daal di wut xiblay Touba yëpp daara penk soowu gànnaar Saloum sëñ Abdourahmane Lo sëñ Massamba Diop Sall sëñ Ibrahima Sall Diagne Cheikh Ibrahima Fall ñooñu ñoo doon jëwriñ ñi kenn ku nekk nag mu toftal ñetti nit yow mu wóoral ñëpp ba leen totaale mu fukk ak juróom-benn liggéey ca ñetti at ba yàlla dogal ñu àgg ci date bi nga xamee ne mooy 1895 nga xam ne juróom-ñaari at sënkam la waaye ba nga xamee ne dëkk na fa ñetti at ci la sëñ Ibrahima Mbacke Kajoor moom mi jël doomam ji ñuy wax sëñ Omar Mbacke Galongal andil ko sëñ Touba ne ko euh, euh, sab taalibe la jëbbal naa la ko addina ak alaxira ba nga xamee ne sëñ Omar Mbacke waajuram teg na ko ci aw fas pour war koo indi yaayam yi nga xam ne soxna Pend bu moo ko laaj ne ko loo bëgg a def nii mu xamal ko ne ko dama ko yëpp sëriñam ba magam ja mu ne ko ndax sañ naa cee boole sama alal ji mu ne ko mu dem indi bu waatu wurusam bu mu yoroon def ci ay takkaayam yëpp boole ko ci loola bu nu demee ba ci kanam loola dana leer bi mu dikkee nee na benn mbàkk mbàkk bu ma maaseel nekku fi ñi ma mag rek a nekk waaye koo xam ne fii ku ma maaseel la ku ma mag nee na fekk ma ko ci biir man maay mbàkk mbàkk bi njëkk a jox bi mu dikkee nee na it mu daal di ñëw nekk ci néeg bi nga xam ne tey fi lañ denc sëñ Touba nee na bi ma gisee sëñ bi gis xar kanam gi mu ngi muñ mel na lu jub am sàkkal yàlla nee na di nuroog sëñ Mbàkke Kañam nee na maa daan taal taal bi maa daan lal der bi maa daan duy satala gi loolu def naa ko toll ci fukki weer ak ñaar nee na ba nu xëyee sëñ soxna Awa Bousso moo fa jëkk indi ab laaxu ba sax bi mu dikkee sëñ Tuubaa laaj na ko ana fara ya muy sëñ Fallu sëñ Moodu Musaa mu ne ko ña fa mu ne daan na ko xam xam nga Omar mii mu daan ne mu daan mu daan ne mu daan ne déer mu ne Omar ndax xam nga soxna awa bu sa mii mu daan ne déer mu ne ko kii a bokk mooy maami sa waaye Maxtaar Dumbe mooy maami sëñ Omar kon noona lañ bokk te Madun mi jur Madun Mbay tooj mi jur Tafsir Maxtaar Binta Loo mi jur soxna Aminta Loo mi jur ne mooy Cheikh Modou Moussa waaye moo jur Eh, Anta Dikkee mi jur Absa Sarr mi jur Mati Sarr mi jur Umu Kalsoom mi jur Mati Ñang Afee mu jur soxna Awa Bousso mi jur Cheikh Amadou Fadal Maxtaar Bousso moom it ko toppee moo jur Modou Fakhouje mi jur sëñ Kokki Jagese mi jur Samba Aminta mi ki nga xamante ne si mm, mooy eh, Penda Buyo bu Buyo moo dem kër sëñ Ibrahima Mbacke Kajoor jur sëñ Omar Mbacke Gelonga kon mu xamal ko ne kon loolu ngeen bokk bi sëñ Fallu ñoom ñëwee it mu daal leen di ñu daal di nuyoo mu daal ne ko Fallu yow xam nga. Omar mi mu daal ne déedéet daal di ree mu ne Omar xam nga Falilu mi mu ne déedéet mu ne ko Falilu mi kat ah, ah nijaayam nga waaye baayam nga nijaayam nga baayam nga comme noonu ñu leen ko waxee ci mbokk mi Modou Moustapha yow xam nga xam nga Omar mi mu ne ko déedéet mu ne ko Omar ndax xam nga Modou Moustapha mi mu ne ko Modou Moustapha Omar mii kat sa mag la ndax yéen seen i bokk ndey ak baay te sa baay la ndax ah, maa moom ñoo bokk baay. daal leen a ànd leen te bu leen tàggoo jox leen laaxu basaab boobu ne leen acca xewlu leen ban demee ba mu ñaan cee daal cee wis ndox ne bismillah daal di dem tooge na le ñoom ñu daal di lekk ñoom ñett ñoo ñëpp ba noppi sëñ Fallu wax sëñ Wadu Musaa ne ko gan gi mu ne ko waaw mu ne ko demal nga woo euh, euh, euh, sunu baay ne ko na ñëw jël ndab li nee na sëñ Omar daan na ñokk dikk fekk sëñ bi fi muy bind mu ne ko bàyyi sëñ bi sëñ bi ne bisimilah mu ne ko gone yi ne nañ nga ñëw jël ndab li mu ne ko dañ lay yónni daan na jóg ne ñokket daa di jàpp ci loxob sëñ Omar ba ne ñaa ñaadam dikk ne kii da ko yónni kii seen kilifa la bu leen ko yónneeti na mujj tey ngeen di ko yónneeti daan na ko sëñ Omar Mbàkke mu ne ko waaw mu ne ko loolu nga ma woowee ndax xam nga ko mu ne mu a mag laa waaye duma sa bàyyi loolu yi nga ma woowee nag nga doon ci ñoom ñii daal leen di wax ne na acce kon mën ngeen di dem sëñ Fallu jóg ànd ak sëñ Moodu Mustafaa daal di geer sëñ Omar Mbàkke ne ko gan gi nañ ànd sëñ Omar nee ma daal di xool ki nga xam ne mooy sëñ Touba nee na daal di ree mu na ma dangaa bëgg a ànd ak ñooma ma daal di ree mu ne ma ànd leen te bu leen tàggoo ànd leen te bu leen tàggoo ànd leen te bu leen tàggoo non ne lañ fa nekkee ba yàlla dogal sëñ bi ànd ak ñoom bis yóbbu leen ci dooru naar gi nga xam ne fi la sëñ Suwaybu ca genn dimb gu fi nekk jox leen ay ëllëwo ëllëwo yoo xam ne ëllëwoy xànjar la moo leen bindal baa seen miim ne leen da ngeen nangoo jàng ñu daa defee mu ne nangeen ko def waaye bañ yàlla dogalee ñu ne ko danañ ko nangoo jàng mu ne na ko def lépp lu ngeen ci bëgg àddina ak àllaaxira danaa leen ko ci defal su ngeen ko nangoo de lépp danaa leen ko defal gaaw gee fàtte ak bañ gee mokkal nag man maa ko warlu yéen kon na ngeen fexee daal di góorgóorlu ci jàng moo leen dalal baa seen ba boobu yi mu agsee ci suuratu yaasin yamoon ñeent fukki ak ñaar ñaar jàpp ñett sëñ Touba leen ko jàngal la leen dese woon bëriwul bi muy dem ci géej gi nag kon noonu ñu leen ko waxee la leen jël daal leen di teg ci loxol maam Thierno ñu teg leen ci loxol sëñ Dame Abdourahmane Lo muy daarul xalimal bi suñu borom dogalee nag mu laata dem ci géej gi ci la yónnee sëñ Mbàkke Buso ak ki nga xam ne mooy sëñ maam Thierno ñu leen dem leen Mbàkke Kajoor ngeen jël leen sama baay Ibra moom ma sama waajur ma boole loon bañ demee ba jëlee ko bi mu dikkee la ne bala ñoo def dara nañ dem nuy ji sëñ Maam Mor Jaara Mbàkke Bawal ba yàlla dogalee nag ñu dem nuy ji ko ñaari fan daal di dikk ci kër gi sëñ baa moo woo sëñ Mandumbe ba mu ñëw nekk sama baay daa ñëw ci kër gi kat te bëgguma bokk moom kër gi la feeg mu fi jógee ndax bu fi sëñ moo Anta Sali ñëwoon du ma du ma ma du ma bokk ak kër gi kon nag jëlal bagage jël tagar yi jël gaal jël satale yi jël sajaada yi jël mboolem li ma fi am yóbbul ma ko ci sa néeg boobee ndax sama sama néeg bii sama waajur boobu dafee nekk muy fii ñu denc sëñ Abdou Lahad foofu la la sëñ Touba nekkoon pendant juróom benn weer yoo xam ne si bis li koy indi ci kër gi mooy bu waxtu julli jotee mu ñëw soññi waajuram woowu mu waaj mu daal di ànd dem ci jàkk ji sëñ Touba noonu sëñ Touba la xam moom mooy jiite moom sëñ Ibrahima Mbacke Kajoor bu ñu noppee moo koy indiwaat ci kër gi leer na ko nag bàyyi Ibrahima mu ne ko waaw mu ne ko kër gi ma doon wax ak nii def naa fi ñeenti néeg néeg bii nag rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ma digal pour ma woola nga ñëw defal fi juróom benn weer bindal ma fi ab kaamil mu ne ko ah, néeg bu yónnante bi daan ne bëgg a wax mu ne ko loolu bul àggale bàyyi defal li ma la wax rek defal li ma la wax rek ndax ndigal moom boo ko jëfee rek bu soobee suñu borom da nga jëriñ kon nag bu la fi kenn fekk te bëgg naa nga bindal ma fi juróom benn kamil mu ne ko bëgg naa nga bindal ma ñaari kamil benn kamil mu ne ko ñaari kamil laa la fi bindal ko beneen néeg bii nag ñam yi nga xam ne moom lañ lay jox te taxoo bu mbooloo mi dikkee te te te ñoom ñoo ñoom ñoo tax na nga leen ko berndee la ci néeg bii néeg bii ci des nag mboolem ku ñëw di la seet yi na la fekk ci néeg bi néeg bii nag boo bëggee noppalu demal ci néeg bii daan na ko nag mi ngoon ne ko nag sama néeg bopp bii nag moom nekk fi ndax fii laay njëkk a ñeme ñama benn bi sëñ Omar Mbàkke dégg sëñ Ibra Mbàkke eh, waxtaan naa sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ko bàyyi Ibra mu ne ko Mbàkke mu ne ko saa borom nee na waxal sa bàyyi Ibra mu di la digal di la tere te wax la loo gën a bëgg mu defal la ko mu ne ko yow ndax dees na la digal dees na la tere mu ne ko wa saawirum fil ardi kat ku tedd ka lañ ko waxoon mu ne ko kon bisimilah man day sañu ma laa digal waaye sañ naa laa wax li ma xalaat ak li nga xamante ne si moom laa xam ndax yow moom doo ku nuy digal waaye li ma lay laaj mooy Daaru Salaam gii nga xam ne yaa ko sañ ci sa bopp damaa dégg ci fare yi ñu ne dafa am kenn kooku bëgg a jox ma di la laaj ndax dëgg la ndax ci fare yi laa ko dégg mu ko waaw loolu de am na mu ne ko nag digalu ma la loolu ko Cheikh Anta mii ndax ay Aysa siidi ak Saaje siidi ak Yaasin siidi ñooñu kat ñoo bokk lépp te foofu la maam si Anta cosaano yow mii foofu nga cosaano te keroog bi ma sa baay woo woo la woo soxna Anta Njaay Mbàkke mii di ma la dénk di wax ne defal Ibrahima mii muy sa baay te mu moom mu ñëw jébbalu ci yow loolee ba mu koy wax soxna Anta Njaay Mbàkke ngi toog ba mu ko waxee ba pare nag soxna Anta Njaay Mbàkke ba mu ne bëri daa dem ci maam si Anta ne ko demal jébbalu ci sama jooju la ma xamante moom ak baax kat yokk na ndax gis naa sa waajuroo dem jokk ci moom te li leen di soxna jaare ci biir kër gii kat soxna Anta Jaay Mbàkke la ndax sa waajuroo kat ku sant kan lañ ko njëkkoon li jëntil waaye dañoo dem ba ci biir yëfee suñu borom dugalul soxna Anta Jaay Mbàkke ne ko ëram wala ci ñoo bokk bàyyi te man nga ma leen njëkkee kon nag néeg bi dama ko jël mu ne ko waaw mu ne ko yooyu yëpp moom moo ci dox comme loola dox na ci nag ba mu am doomam ji njëkk a jébbalu ci yow ba jébbalu xewul te moom moo ko ko digal booy dénk dénkal dëkk bi Cheikh Anta nit kat booy dox mu tànk tànk boo seqi mu teg ca di dox loo waddal moom moo koy for mu ne ko nangu naa loolu mu ne ko mëndu mi mii kat na ko wàccee bala nga fay jóge ndax sëñ Maam Mor Jaara la doon mulitu te ci yow la mottalee waaye dañoo bëgg nga wàccee ko defal ko xéwal ba kenn du ko mën a reetaan ndax waa Mbàkke gépp kat gërëm nañu ko waaye ñi ngi koy reetaan ngir nekk gi mu nekk fii ci yow defe na du mën a am soxna mu ne ko loolu la ñu wax mu ne ko loolu lañu wax mu jël soxna Khoudia Sylla mi nga xam ne soxna Khoudia Bousso mi ko jur moom soxna jaara ñoo bokk ndey ak baay daal di ko koy fasal mu jur taawam bi di sëñ Ibra Mbàkke ñu ne déet mu jur soxna Fatou Bintou rek maam Thierno jox ko moo jur sëñ Modou Xabal daan na ko dana nga fexe ba ku koy reetaan bu ëllëgee na ko doon ñee ndax ku ko ku ku baax la te ku jàmbaare la mu ne ko defal nañ ko loolu mu daan na ko Ibra Fall mi nag xaw ma fu ngeen ànde waaye jéemuma ko xam waaye bul ko sañcal fenn na nga ko bàyyi mu di la wooteel ndax téeméeri man ak juróom fukk ak juróom-ñeent kat yoo gis yu nekk mennum yowaa ko gën te mënoo wooteel sa bopp yaa ngi dem ci tukki bi dana yàgg dana metti waaye sërité bu doon ngay indaale kon bàyyi ko mu wër réew mépp gor yi fi nekk mu dajal leen indi leen mu ne ko nangu naa loolu mu daa nekkoo nag leneen li ma lay laaj mooy yoon wi koo ko bëgg a dénk mu ne ko koo yaakaar na moom laa bëgg a dénk mu ko danga may wax ka nga defee ma wax la ki ma yaakaar mu ne ko diw mu ne ko digalu ma la loolu dénk ko na Thierno mu ne Thierno mii kat doyaduma tey li nekk ci moom maa ko ci def waaye ni at yu néew yi rek moo ma ci xaw a jaaxal mu ne ko at yu néew yi ak ñi yor at yu bari ñoo yem rek képp koo ko dénk lu at yu bari bari te dimbale woo ko du dem tey it maa ngi lay dénk maa ngi lay wax ne la képp koo ko dénk kookee nga koy dénk ba muy ñëw ci yow am na jikko ju nekk ci moom joo xam ne sii defoo ko ci te boo ko dénkee keneen bàyyi fi Thierno waa Kajoor danañ la jam te waa Kajoor bu ñu la jamee ci sa alal ji na la wóor ne wóor yàlla ne bu ëllëgee bu ñu faatoo ñoom ñëpp danañ màcc dem sawara kon loolu moom maa ngi la koy dénk ne la na ko daal di teel a wattandiku Sëñ Tuubaa daal ne teg ba mu yàgg mu ne ko suñu borom nee na lii nga ma digal danaa ko def xamal ko ne ko moom ko nan nga dogal bi yàlla daanaka yow nag waxal loo gën a bëgg mu ne ko li ma bëgg de mooy man de jàng jàng naa te sama waajur ma dalal sa waajur moom a mottalil alxuraan bi sa waajur woowu ma mottali alxuraan ji nag téere bu nekk ci biir réew mi bu war a jàng muy téere diine xam naa ko jaamu naa yàlla yëpp mosuma mooy yàlla mosuma def lu naqari yàlla fàttaliku ma fenn fa yàlla digle te defuma ko waaye loola lépp day xam naa ne lu baax la waaye jàng naa yow ma yi ci alxuraan yëpp junni ak lu topp yow ma yooyu yëpp nag lenn la ca topp lu nekk ku ci dajeeg suñu borom te dox doxoo diggante ak moom musiba dana am kon nag damaa ñëw jox la sama bopp addina ak àllaaxira te bala ma fay jógee na Touba gépp yëg ni jëbbulu naa mu ne dënd na ko bàyyi Ibra de bett nga ma lool te lii nga def de boo ko deful woon dana ma jaaxal ndax man li ma yor dama ko moomul alali suñu borom la alali suñu borom jooju nag mënoo caa def lenn te jaaroo ko ci bunt bi mu taftal ko ci ne bëgg naa it bés bu may sama roog yi rocc bu ma ko yëg naa nelaw rek yeewoo ji àjjana mboolem yi yàlla wax ci alxuraan yooyu yëpp gëm naa ko waaye man li ma bëgg mooy yooye yëpp bu ma ca jaar bu ma yeewoo naa yeewoo àjjana mu ne loolu dama koy wax seen borom daal ne dënd ba yàgg mu ne ko seen borom wax ne nangu na ko mu ne ko leneen li ma bëggit mooy ñii nga xam ne ñooy samay doom waaye ñooy ñoo ma mag ci taalibe bi ndax ñoo ma jëkk a jébbalu mboolem jabat gu ma am bu mu la génn bu génn sa dara na ñëpp maase doon ay murit ay yoo xam ne sii bu ëllëgee bu nu dajeeg borom danañ laq li nga xamante ne sii mooy sa ngërëm mu ne ko xaaral ma wax ko suñ borom daal na dënd na suñ borom nee na nangul mu ne ko beneen bi ci toppit mooy njaboot bu jigéen gi nga xam ne ñoom la ma yàlla jox ñaar ñii day bëgguma kenn koo xamante ne sii bëgg naa mu ànd ak ñoom muy ab jàmbur ak ub jaahil ab jàmbur bu mu ànd ak ñoom ab jaahil bu mu ànd ak ñoom mu ne ko xaaral ma laaj ko suñu borom mu ne tekk yàgg na ko suñu borom nee na nangu na nee na moo koy saytul boppam ñetti yii la ko sëñ Ibrahima Mbacke Kajoor wax yàlla dogal nag ñu daa di fay tàggatoo sëñ Ibrahima Mbacke Kajoor daal di delloo Mbacke Kajoor Serigne Touba daal di fay jógee daal di dem ba fi nga xam ne mooy Mbacke Bari Mbacke Bari boobu ba muy dem wax naa leen ne dañoo tabaski wala dañoo wari ba am ñetti fan mu jóge fi ànd ak Cheikh Ahmadou Moussa du Cheikh ak ñenat ci mag ñi wax naa leen ne leen sëñ Bousso bi fi la ko bàyyi woon waaye ba mu demee Mbàkke Bari ñeenti weer yooyu la wàcc bu liggéey mu dem siyaare ji ko del siwaat ñeenti weer sënkam la fa def jël sëñ Omar Mbàkke sëñ Masamba ak sëñ Mor Roqay des jox maam Thierno ne yëpp leen Abdourahmane ne leen bokkam yi nga xamante ne si ñoom ñoom laay àndal ci tukki su gàtt si danañ leen fa fekk muy sëñ Madou Sow ak Cheikh Amadou Fadal ñoom ba muy dem Mbàkke Bari yu bàlle na leen ñeenti weer yooyu mu fa def nag la fa xew lépp moo fa la xewe ndax booba tubaab yi dañuy seet ku ñu jubóol ci nit ñu ñuul ñi di seen xarit ñu teg leen fi barab di leen fa def loo ko di leen diddiloo muy lu mel ne loolu nga xam ne moom la ñuy wax agent secret yi nga xam ne lépp lu fa xew lañ ko jamono jooja nag ku ñuy wax euh, Samba Lawbe moom lañ fa tegoon gannaaw ba nga xamee ne maamam wala waajuram gàddaay na muy Alburi yàlla dogal nag ñu teg ko fa moom moo doon dox diggante sëñ bi ak tubaab yi ndax li ne ci Jolof lépp moo koy xam ak ku ñuy wax maa abduloo fara biram loo maa abduloo moom it mooy def lépp loo xam ne sii war nañ ko xam tubaab yi war nañ koo xam ci diggante buur yi ak sëriñ si moom moo koy dox di leen jaxase ba tubaab yi ñëw dal ci seen kaw kon sëñ bi wax nañ leen ne kon noona la def ba yàlla dogal mu daal di génn fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar daal di jaar jeewal dajee faak jaraafe ji nga xam ne mbooloo mu bari toppoon ci seen gannaaw mu dëgër mu soxor te yàlla dogal ne day fanaan bañ dikkee sëñ bi walbati kanamam jëmee ko ci geneen wet gi jàng juróom fukki bismillaahi rahmaani rahiim jaraaf ji amaat yeneen yitte ju nekk ci xelam ba tax mu daal di dem bàyyi fa sëñ bi sëñ bi fanaan bisu dimanche boobee ma fa jógee nag fukki fan ak juróom-ñeent la kokki daal di fay yendu ba ngoon jot mu daal di fay jóge yàlla ji dogal mu daal di ànd ak ñam àndal daal di dox wut ci Louga yee ca xew yëpp mu ne ba jublu ci màggal gi incha allah def na ci dikk waaye bu njëkkee Louga yi ñu daat koy teg ci saxaar andi ko fi nga xam ne mooy ndar ndar ñeent fukki fan la fa def yu manqué kër Ahmad Khouraychi Seen it nga xam ne ab euh, restaurant la woon foofa lañ ko yóbbu moo ko daan jox li muy lekk ak li muy naan ndax noonu la tubaab bi daan def gan buñ gën a fonk bu ndikkee moom lañ koy jox bu weer wi dee ñu dem mu jox leen ay këyit ñu daal di koy indi kon xam naa ne nañ daal di jublu ci li nga xam ne mooy biróom daal ci juróomeelu waxtaan bi su ko defee incha allahu daal di mën a continuer noonu rek ba ba ñuy dem ci géej gi ba géej gi jeex jërëjëf. قول من بالعرف أمار سر من تحب وإن فرد بك الدار وهال من دونه سهل وأوهام laa yamna'annaka buhtun min ziyaaratihi innal muhibba liman yahwaahu sawwaaru ilayka qad tubtu min